asalaamaaleykum wa rahmatulah téléspectateur Safina TV ñu leen di nuyu di leen ziara tey nag ñu doon def uh, suñu premier reportage si mën bi tey ñu doxantu ba fi nga xamante ne mooy Thiaroye Gare quartier bi a Biafra ñu ñëwoon seet ana naka la askan wi di dundee ak mën bi inondation bi nga xamante ne ñu ngi koy wax Thiaroye dëkkuwaay yi fees gi mu fees askan wi fan lañ leen def naka lañ ko dundee soo ko bëggee xam mbokk danga may topp ñu dugg si biir laaj askan wi naka lañ dem topp ma mbokk xool. yàgg na fi moo tax man lu ma ci ngañ ñi benn nguur xamal ci ciy wax nguur gu taxaw fii nekk fi muy nguur nga xam ne président Macky Sall moo ko res mu am ci ñun yërmande gi mu war a solution dimbali ñu ba yàlla def lii ñu am fi

dinañ génn ci biir kër yi ba ci jigéen kii nga gis gañ siri fay euh, folataala soloon keroog ak ñii dugg ci biir ay en tant que jigéen di jàppale seen morom jigéen ñi waaw vraiment mu nekk loo xam ne nii vraiment lii dafa yéeme waaw dafa yéeme yéene presse bi nga xam ne nag yéene fi njëkk a ñëw pour rien que xam naa dégg geen na caare metti na ñëw ngeen te situation bi ma wax nii ah su amaatee bu tawaatee ñun dañuy tiit ñu heure buy wis rek dañuy tiit loolu la ñu wax dëgg buy wisee rek la tit parce que lox ñuy tit parce que ce cœur bu fekkee sa kër loolu ndox duggul yaa ngi xalaat ne sama cœur euh, sang bi ndox ak fay ñoon di lañ sonu sonn tey toute la journée ba vraiment ñun luñ ci mën wax moy président lañu gëstu parce que ñun dañ ñoo faté ah du ma fi fii fii Biafra dañ ñoo faté complètement dañ ñoo faté parce que fi ni ya rien amul ben infrastructure bo xamné sax mën nañ ko def ñu né ñu né li ni parmi état mo ko fa def té état monté président day tok muy déclarer fi ñu war défal ñun ñu ngi dégg président li wax mais ñan lan mo tax affaire egg fi président da ko déclaré tout le monde ñep dégg mu ne bëgg naa ñu def caare président da ko chaque jour fii ba tay muy Kër Massar mais problème bi moy ñun ñim ko wax mais nañu matal li leen jox. mais yeen est-ce que sen maire dëkk mi ngi ñëw. maire bi ñun barki dembu lañ fa juggé dem samedi vraiment biñ ko expliquer suñu problème dafa jënd ay moto pompe jox mais xam nañ né problème bi euh, waaw problème bi pompe yi xëy na réglé wu ko mais xëñ na jox nañ ñu gënal pompe ñun chaque jour bu ñëw dañuy pompe dañuy pompe chaque jour ci pompe dañuy fanaanee taw ba suu pompe lañuy dëkk mais pompe yi boo pompé tey mu tawat dañu dem ba am problème gasoil quand même parce que pompe yi gasoil koy doxal yéen tuy gi courant koy doxal ki ñaati carte la jënd ku leen sa kër da nga brancher pompe koñ boo yaay fay kenn fay ko yaay dugg ci kër yi jëndal leen carte bu ñuy consommer nga jox leen carte crédit parce que carte yi benn crédit la da ngay dugg jënd 5000 10000 francs pour mo mën daw parce que pompe yi électrique day jël courant day jël courant yu gasoil yi gasoil lay lekk pompe bi xol pompe bi wara a lak lekk gasoil suba ba ngoon kooku ñaata la bu fa amul fanaan ñaata la dafa bari fu muy jóge doy na waar loolu yaay ba ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw ñu ngi lay fay di leen nuyu di rafetlu seen taxawaay fii ngeen ñëw fekk suñu ci Amdalaay 3 ñun nag dañoo yor benn collectif collectif pour défendre l'intérêt de Amdalaay 3 ñun nag man li may gën a wax comme kii wax na lépp ci mbënd mi man fii laay wax fii laay gën a wax mbalit mii nga xam ne moo ñu sonal mhm. ñii nga xam ne seen kër yi bi ñu ko àmbaandoo néeg léegi foog naa 2002 ba nëgë ni fekk na kër yi kenn dëkkatu fi ñu fiy tuur ay mbalit boobu mbalit mii ngay gis nii ndox mi su fekkee ne mbedd mi ndox mi évacué na ba wow ci biir day des ci biir su inondation ñëwee dem barki démb 24 heures yi mu taw sax yi ak lépp dafa dugg ba ci sunu biir kër yi dugg ba ci sunu biir néeg te ñun dañoo yor ay xale. Mhm. foog naa président fépp fu mu mun a dem. warul mën a fàtte caaroy gar te ñun toujours nag ñun caaroy gar daal président buy falu fii ngay jaar waaye boo faloo fàtte ñu ñun caaroy gisuñu dara dara gisuñu ko li nga wax nag maire bi intervenir na ay moto xëy na maire tamit foofu la dooleem yem maire am na foo xam ne fa la mën a yem li ci des état moo ko mën a faj état moo ko mën a régler ñun nag ŋaañuñu kenn ñun nag collectif lañ politique gu ñu collectif bi nekkul collectif pour politique dañu toog pour défendre suñu intérêt quartier ñun daal li nu bëgg képp ku ñuy dimbali nga ñëw taxaw ñu démoliral ñu kër yii ndox mi jóge fi mbalit mi jóge fi ñu defaral ñu ko mu nekk sax espace vide bu rafet ñun loolu moo ñu soxal dañuy wax coronavirus mais li nekk fii moo raw corona moo raw corona téeméeri yoon ñun ci danger la ñuy dundu ci danger la ñuy dund te ñun ay jigéen lañ ku nekk war nga ñoo gestu yërëm ñu président ñu yërëm xam ne li ñuy dund métti na yooyu ñu woo waa service d'hygiène ñu ñëw pompeel ñu sunu koñ bi. ci askan wi ngeen bokk ci askan wi lan bokk. nan ñu dimbali taxu ñoo jóg bu wote jotee ñun xam nañ ki ñuy voteel ay magum jëmm lañ j'ai cinquante huit ans yu teg problème bi mooy ndox mii ñu dëkkal maire xam na ko parce que mi ngi fi dëkk ay représentant ñu ngi fi mais kenn defu ci benn effort dëgg-dëgg kenn defu ci benn effort yéen nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci déplacement bi ngeen ñëw. Wa papa yow kon yàgg nga ci quartier bi 58 ans yakana nek ne ni la mel wala. melul bu mais dañ ko seetaan bu est-ce que y askan wi ñoo dëkk place ndox. askan wi y du won place ndox mais dañu dem xam nga bo dëkk way la bo xamé ni da ngay dëkk ay nit ñoo ni bokku leen mhm. yi nga gis presque mën ñi fi locataires ñoo fi ëpp sax borom mhm. dem na nañ ba contrôle bi fi am sax ki di garder pompe bi. akas néew lim fi def sax kenn defu ko ci te kenn dimbalé ko moy tal moom moy wax yi pax yi yépp ndox mi di dem mais amuñu ben effort bo xamé ni ben politicien def na pour fi ah man gis ma deug deug sa dernier mot lan la ñu ngi leen di gëreum di leen santé di leen ñaan dal ngeen ku lu ñu way mëna dimbalé ba ndox mi joggé fi nit ñi ci seen biir kër loolu dal moy suñu yité du ciép du diwlin parce que bu dé lek rek am nañ ko bu dé nan am nañ ko waaw bu dee faju mën nañ faj suñu bop mais mënu ñu dëkk ak ndox mi ndox mi dafa baxul té déssé la loolu moy suñu préoccupation yeen ñëw ngeen dug ngeen ci kër yi gis ngeen loolu ñu ngi leen di sant nak di leen gërëm ci déplacement bi fii daal mooy Amdalaay 3 quartier Biafra frontière wa fi la yam li ci des recette la mais ndox mi jóge recette moy wacc fi di ñu sonal ki nekk ci pompe bi sax mom mo ñu ci dimbali dégg nga léegi ma nan ko bo paré nga ubil ma waaw parce que ndox mi moy génné ndox yi ci kër gi waaw ndox yi yi di daw mooy génnee yii ñëpp band bandoon nañ seen kër dem te neexul daal lii daal lañ leen di sant di leen gërëm ndox bi ba pare luwee ko kon loolu danger la si population Thiaroye Hamdalaye 3 parce que fu mu ne nii la ñoo bëgg loolu lépp nag compétence maire moo si war a mën a jàpp ànd si ak population Thiaroye ñu dis ko président pour mën a évacuer fii Thiaroye amul espace vert amul fenn foo xam ne yow les jeunes mun nañ ci mën nañ cee nekk loolu amul te loolu ñu ñaan président mu defaral ñu canalisation ñun surtout suñu problème mooy canalisation Thiaroye na am ay am ay route am ay pavage mais Thiaroye amul pavage amul route amul dara loo xam ne tey lii diggu na Thiaroye Thiaroye lépp suuf la te suuf nag war na mën a xeew ci yenn ci yenn gox yi parce que fépp fépp fu mu dem rek Pikine Guédiawaye yëpp ñu ngi am ay tali pavage am ay canalisation mais Thiaroye rek moo ci des loolu la ñun président lañ ci demande loolu mom moko mëna défar parce que loolu rek mom moy kiyom comme nak mom défar moko taxaw tax ñun ñu koy ñaan wa amdalay 3 mu ñew defaral ñu ay canalisation defaral ñu ay pavé dégager ñoom ndox mi ak mbalit bi mu def ko espace vert parce que borom kër yi ñu si déppale ñoom dem nañ seen yoon té loolu mais si walum balit moomu balit bi gisoo ne askan wi en tant que jeune lan nga siy wax soo askan wi tamit ñoo fi def balit bi wa jeune mom ñu ngi leen di xaar ci loolu parce que collectif bi loolu moo ko tax pour ñu mën a xeex mbalit bi parce que dañ ne la weesa bayu tàng parce que lépp looy liggéey yaa si war a jiitu balaa ndimbal di ñëw da nga dimbali sa parce que soo nekkul ci yoon kenn du la dimbali da ngay nekk ci yoon ku la fekk si nga dem mais nag loolu moom ñun engagé woon nañu pour génnee fi mbalit bi mais nag ñu ngi ñaan demande boo xam ne tey bépp autorité bu fi nekk te war mun see jàpp ñun xaar ñu président kese mais képp ku fi nekk war mën a ñëw xeex ci mbalit bii feeg fen un bii di ñëwaat mois de war nañ ko a démarrer parce que si bi la nekk mënoo di xeex te ndox mi génnagul loolu moo tax ñu ne dañuy xaar ba début octobre ñu mun a def set setal bu rëy dégager fi mbalit bi dem gis préfet wax ak moom pour mu mun ñu génne ci si situation ñu nekk parce que préfet tamit il faut que moom tamit mu jàpp parce que préfet moo ko waafee Caaroy te nag ñu lépp lu ñuy xeex préfet war na fi a teg tànkam mais boobu ba léegi ko fi te loolu nag ñun bëgg nañ moom mu demande ñu loolu ñëw fii ñu ñu nekk ci. sa dernier mot par rapport ak jeunesse bi lan nga leen di wax. waaw ah, jeunesse bi nag man maa leen di ñaax. ñu bolo, te génn bolo, moy doole ku nekk bàyyi interpersonnel lu ñuy ñu ñëwondo dorondo nous kenn nak du juk fenn di ñu man jeune ci loolu la leen di lancer ñun ñëpp nañu gis nit ñi di donc yow dem yabalal sa rak wala nga yabal sa mu dem kër gu personne bëgg ci mais loolu leen di ñaax ñu ñëw collectif bañ am intérêt personnel né li man rek kon te lu lu laal sa morom ëllëg dina la laal man loolu laay lancé mooy ñu nañ nekk benn xeexandoo jógandoo dóorandoo jeunesse bi nag loolu laa leen di ñaax wasalaamaaleykum wa rahmatulah. yaay booy mu nekk euh, responsable collectif euh, euh, collectif APR des femmes de Amdalaay 3 yaay ñu ngi lay nuyu tur bi naka la. man la Adja Sagar Pay responsable de femmes APR bu Caaroy Gaar. yaay booy nga nekk responsable APR bu Caaroy Gaar ñu ñëw fii gis fi wàllu inondation bi mu nekk lu lëmbee dëkk bi loolu ana ran nga si xanaa di leen balu àq rek euh, di leen massawu ci coono bi te xam ne président Macky Sall moom xelam yépp ma ngi ci ma ngi ci ndox mi toujours ma ngi koy xalaat toujours ma ngi ci wax dëgg yàlla daanu moo dojul suuf mais wax dëgg yàlla yi metti na lool metti na trop metti na ñun responsable yi metti na président Macky Sall metti na Marème Faye ndax Marème Faye wàccee na fi sax nag bërki démb ay moto pomp yu baree baree baree baree bari ña ngi koy séddale pour léegi ñu joxe ko ci chef de quartier yi chef de quartier yi dugal ko ci biir gox bi pour ñu ngacc ci ndox mi. est na fii yi waa Amdalaay 3 am nañ si wala amaguñu. waaw Amdalaay 3 am nañu ndax li tax ñu am dañ fi indi woon benn moto pompe mais moto pompe ba am ñoo xamante ne bii xëy na lañ ca wax président moom santu leen ko mais ku tudd Mbay Seen di responsable jeune. indi na fi ñaari pompe ñeenti pompe yoo xam ne daf ko jox waa gox bi pour ñu pompe ci muy Mbay Seen. ñu koy sant di ko gërëm mm-hmm. di ko ñaanal ndombay tànk ndax xam nañ ne moom ndombay tànkam bu bu baree mm-hmm. caaro yi gépp lii dina fi jóge bu neexee yàlla mm-hmm. mais askan wi souvent damay dégg si wàllu ñi nga xam ne inondation mën na ba lëmbe na seen kër yi ñu jox leen ay moto pompe mais dañu am problème gasoil ah lan nga lan nga si xalaat waaw gasoil tam Marème Faye indi woon na ko indi woon na gasoil pomp bu nekk boole woon na ci lu mat deux cent euh, litres gasoil te nee woon na bu jeexee tamit dañuy dolliwaat waaw lol tamit mom amna en tant que responsable politique à chaque fois bu nawet amé deuk bi am inondation taw bi beuri est-ce que gisoon solution war na meuna am de telle sorte que bu nawet amaté bu tawaté deuk bi du melni parce que chaque année rek la les mêmes faits se sa sa day dellu si waat. waaw loolu xalaat nañ ci waxtan nañ ci barki dem ci audience bi sax biñu marim fay Faye recevoir loolu lañ ko jëkk wax muy coono bi nga xam mom la askan wi di dundé mais fi ni commencé nañ ay ay canal mo ngi ni ci. Euh, tali jaar tali bii nii rek tali bii sës ci ñun rek commencé nañ fa ay kanaal dañoo eggagul moo tax ñu baare tali boobu nga xam ne moo jóge guy ga jëm jàmm gën ci la ñuy gas noonu kanaal yi ah am nañ yaakaar ne bu ne lii moom du am bu soobee yàlla. ah yal na ko yàlla sottil waaye en tant que responsable politique aussi ñu gis ne tey nga bi ñu ñëwee kër yi ndox yi fees na lool ci kër yi est-ce que askan wi dëkkoon fii seen kër yi ni ñuy feesee ñoom dañoo génn kër yi wala dafa fu ngeen leen yóbbu wala lan. waa dañ leen di jël nag ñoo ngi koy préparé noonu ñoo ngi ciy waxtaan pour génnee leen ci ndox mi defar fi ay canal pour ñoom ci seen bopp lii bañati fee amati ndax nit ku nekk nag sa kër moo la gënal foo manti dem ci àdduna bi waaye nag ndox la kenn mënul dëkkal wee loolu yëpp nag ñoo ngi ciy xalaat xam nga rek boo jotee réew mi te fekk ne moo fekk fi ay jafe-jafe pour lépp sotteendoo rek moo yombul waaye président Macky Sall xelam yëpp ma ngi ci lii lii tey ndax lii ñëpp la metti ñepp la nakari mais nak dogalu sama borom la ah ñu ñaan yalla rek bu déwénee bu soobe yalla fekk fi am ay canal kenn du gis ndox bu nexé yalla yalla ko yalla sotil way en tant que responsable politique aussi sa yenen naataangoo yi est ce que jaaduwul ñu wacc ci fi ñu ñëw xool parce que caaroy gi tamit wax deug yalla lañu wax keur Massa yenen gox yi mais caaroy graw na trop. caaroy romb na graw ndax ñepp seen keur yi fess nañu ñu doon jaay jaayetu ñu doon jënd jëndetu ñu doon dem ñu fenn ñepp ngi seen biir keur ndax seen kër yëpp a fees kon caaroy graw na garaaw na torop torop torop foo ko takk weesu na ko man dama yaakaar ne politicien la ko war mooy bu askanam saa ñu amee problème mu taxaw ci seen wet defe naa ne loolu mooy responsable def ni mbay seen def defe naa ne lool daal mooy li nga xamante ne lu am solo la daal. sa dernier mot ak askanu Caaroy mooy santu leen gërëm leen rek leen ñaanal yàlla daal bu déwénee lii bañati fee am bu neexee yàlla yàlla nañ ko fekkete tal ko. amiin yaa rabbi di sant ñi ma àndal nag sama euh, kii yi ma àndal nga xamante ne bi saa ñun ñoo ngi dugg ci ndox mi ñoo ngi dugg ci mbokk li lañ leen indiloon si wàllu reportage si inondation yaakaar naa ne doy nga gis ngeen euh, wàccaaroy ni ñuy wax li nga xamante ne moo fi nekk euh, yéeme na loolu waaye yéen ñëpp ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ak li nga xamante ne ñu ngi koy ñaan askan wi ñu bàyyi ko xel bu baax baax di leen jaajëfal di jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi ma àndal suñu caméraman Petit Fall di leen jox dig daje beneen émission spéciale reportage mbokk jërë ngeen jëf